بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي تي داني وقتاني تي نجنيل ينك تي مدينة المنورة دي دك يرنتبي صلى الله عليه وسلم جاكم وي حديث أبي سعيد الخضري حديث البخاري المسلم يرنتبي صلى الله عليه وسلم من إني جعلتها حرما لا يهراق فيها دم أو منها دم ولا يحمل فيها صلاح سلاح mu ne Madina kat def naa ko mu nekk dëkk bu ñu araamal dafa araamal ñu xeex fa araamal ñu tuufa deret araamal tamit ñu génne fa jaasi comme moom mooy loolu moom mooy alxaram moo tax ñu tuddee ko alxaramu nabawi ñaareel bi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu muslim xadisu fatima bintu qays mu ne fatima bintu qays innaha tayba innaha tayba innaha tayba mu ne ko lii di madina kat dëkk bu sell la dëkk bu sell la dëkk bu sell la mu wax ko ñetti yoon beneen ngëneel bi nga xam ne Madina am na ko xadisu abi hurayra xadisu muslim mu ne inna al imaana la yarisu ila al madina mu ne imaan kat fa muy dellu mooy madina mu ne ma mujjub jamono ba ku nekk di rawale sa imaan bu yow nga dem madina ndax imaan fa lay dellu fa lay toog fa lay samp beneen ngëneel bi moom mooy bi nga xam ne Euh, madina am na ko ba tey xadisu abi hurayra yonente bi sallallahu alayhi mu ne inna al madina laa yadxuluha dajjal wala taaun mu ne lii di madina feebar bii di feebaru pest ak dajjal du fa dugg feebaru peste du dugg biir madina dajjal tamit du fa am accès ndax dajaal mu jóg jamono fu ne lay am accès fu ne lay dugg ba mu des màkk ak madina beneen bi النبي صلى الله عليه وسلم ci xadisu abi said al xudri xadisu muslim mu ne man sabara ala lawaiha kuntu lahu shafian fi ljanna mu ne ku dëkk biir madina daal di muñ tàngooram ba ñëpp xam nañ madina dëkk bu tàng la mu ne képp ku muñ tàngooram ba ba faatu ca dëkk ba man maay ki lay ramm man yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla ci yàlla boole beneen bi nga xam ne njëriñ mérite bi nga xam ne madina am na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadiisu ibnu omar xadiisu nasaa'i mu ne man istataa an yamuuta fi lmadinati fal yafal mu ne ku mun a faatu biir madina na ko def ci riwaaya mu ne fa man maata fiiha kuntu lahu shafian fi ljanna ku dee biir madina man maa lay ramm keroog yowm alqiyaama beneen gëneel bi nga xam ne madina am na ko ma xadiisu imaam ahmad xadiisu sahl ibnu xanif alsaxaabi aljalil mu ne biir Madina am na ab jàkk boo xam ni ku fa julli ñaar ràkk de tolloog tiyaabay ko umra jàkk boobu mooy ban mu may jàkk Quba yonent nee na kaana julli ñaar ràkk rek tiyaabay ko umra beneen bi mooy beneen ngëneel bi nga xam ne Madina am na ko mooy jàkk yonent bi salaa sallam fa la nekk te jàkk boobu ku fa julli benn julli boo fa mënta julli muy farata muy la nga julli fa benn yoon moo xam ñaari rakka muy farata wala naafila day tolloog tiyaabay ka julli junni julli day tolloog tiyaabay ka julli junni junni julli beneen ngëneel bi nga xam ne Madina am na ko montagne bii di Uxud fa la nekk yonent bi salaa sallam nee na Uxud jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna mu ne montagne Uxud kat montagne la boo xam dañ koo bëgg mu bëgg ñu borom xam ne nañ bëgg dëggantaan la rek la Uhud di bëgg te montagne boobu amul fu mu nekk doo ko fekk fenn fu dul biir biir Madina beneen mérite bi nga xam ne Madina am na ko Madina ca suufam am na ab tàndarma ba fay sax am na façon tàndarma bu ñuy wax ajwa Madina rek lay sax yonent bi salaa sallam nee na man tasabbaha bi sabi tamaratin ajwa képp koo xam ne xëy na daal di lekk juróom-ñaari tàndarmay ajwa bii nga xam ne Madina lay saxee mu ne kooku njibar du ko jàpp façon du ko jàpp te tàndaru boobu biir Madina foofu lay saxee yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne dañuy dëkk Madina faatu biir Madina ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na al madinatu xayrun lahum law kaanu yaalamuun Madina da moo gën ci nit ñi bu ñu xam dëkk fa te faatu fa moom moo gën ci ñoom wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammad